damay jeex ak yow mais balaa may jeexal dafa am fu may dugg ak yow tuuti rek si ñaari combat bi si jëkk mooy Lac de Guiers Eumeu dañoo bëri deux fois Eumeu mat si ni la Lac deuxième fois bi Lac Eumeu daan ko seen troisième combat suñu papa Gaston Mbengue ñu koy nuyu di ko ziar mu tëggaat ko mhm. te defe naa su ma jumul combat yëpp parce que moo ko tëggoon mhm. mu mel ni combat bi nit ñi dañ doon wax naan au début neexul nangam nangam mais dafa mel ni combat bi fi mu nekk nii dafa dem ba ci côté communication mu tegu ci kaw combat yépp ndax li ko waral mooy enjeu combat bi yaakaar na ñaar ñooñu parce que lak nee lu mën a xew bi yoon day fayu te ëmma jëli nañ ko mu ne loolu moom bu mu ko xalaat. xam nga mbër li ñuy wax toujours bu làmb amee dañuy wax rek pour jaay combat bi. Mhm. mais na combat bi di dañ ko xam. ndax mbër ba ba téye boppam. Mhm. laaj bëri bi nu mu demee ñu nettali ko du xam sax nu mu demee xam nga ëmb seen bëri bëri motuloo dañ ko ko waaw dama xamul nu bëri ba demee dëgg la boo ko laajee naan xaw ma nu mu demee dañ ko koy nettali bëri nañ seen bëri bu njëkk bu gis nga ne mu mel waaw bëri bu metti bu doy waar la metti deuxième bëri bi tamit bu ko ëmb di daan Lac de Guiers contesté na combat bi waaw mais nag bëri dafa am ñu koy atte te ñu koy atte bu ñu xasee ba joxe verdict mhm. mën nga def appel mais bu ñu fa jógee dañuy dem à autre chose. bien sûr te it Lac di ko naqaree daan. Lac dafa tam bëriwul déedéet. lu tax mu naqaree daan. ni muy bëree la. day défendre wala day dafa dafa yore. dafa naqaree daan dafa assuré bëreem. dafa xam li muy bëri xam li mu am comme force ak liy faiblesse am. kon ñuy wax ne mënta bëre bokkoo ci. dañoo mën a bëree ku mënul bëree doo bëree dix fois booy te te daanuñu la xoolal ñu mu daan. benn defe de la am daan mais xoolal ñu mu daan. waaw morom yëpp la daan. waa loolu am na de. dañoo mën a bëree kenn dàq ko bëri ci làmb ji ku nekk nag am ni ngay bëree mhm. moom ni muy bëree mhm. mooy doo ko egg fenn foo xam ni mën nga koo indil problème bala nga faa egg mu téye la am dafa nay ci yaram te boo insister mu daan la mhm. léegi sax peut-être la changé mais bu yàgg mu da daan xeex bu metti di song man comme li ma wax am na âge boo xam ne boo ko amee da ngay changé bëri ndax dangay ngay ruus sa daanu mais kenn ndax ko bëri ci làmb ji Lac de Guiers bariwul defet ñaari defet la am ñu ko daan am nañu ay huit defet waaw Eumeu Sène sax su ma jubul moo ko daan Eumeu Sène am na Eumeu Sène Eumeu Sène am rek ko daan ak gisaatuma mbër ko daan Modou Lo rek moo mhm. moom contesté na ko mhm. mais daanu na ndax ñi atte nee ko daanu nga way voilà dafay mbër moo xam ne dafa naqaree daan mhm. Eumeu Sène it dafa bëri dafa bëri dafa bëri facette u bëri waaw yaram wi euh, nin ci bëri dafa yàgg bëri ba muy xale bëri simple def ko man ndax teel a dem équipe nationale dafa mën bëri dóor parce que dafa ñeme ñeme googu sax moo koy ñàkkaloo parfois combat nga xam ni mu bëri ak Modou Lo ñeme bu ëpp la du bu mel ni Modou Lo du ko daq muy dellu ginnaaw ngay continuer da ngay taxaw mhm. donc champion bu mag a mag la mhm. ndax déjà ni mu daane jee ko amul xam-xam doo ko def gis nga bëri ma Gris Bordeaux mhm. gis nga tamit yeneen bëri yi nga xam ni bëri na ko dafa teel a mun bëree xam bëree mànd ci bëri dëgg la comme combat bu mag a mag la. combat bu mag la Luc di ko euh, Lac di ko naqaree daan. Lac moo tax ma la seen bëre bu métti lay. parce que am na ñoo xam ne dañ Lac moom ci côté doole du voyage du dem fenn mais mbër du indi doole ci lamb ñu ëpp ko doole. bind bi la dafa bind boo xam ne boo ko amee jarul ngay voyager su voyager pour yokki doole la te moom am na ko jaru mhm. bind bi baax na. Mhm. te fooyewul boppam. Mhm. dafa conservé. ok da nga koy doo ko dégg ci dara dafay teel a tëdd dafay récupérer te dafay entraîner. Mhm. te bu summee ko ci làmb nga xam ne neexu la daan mhm. ko ki muy bëreel moo koy xam. bu mhm. summeekoo ba jàkkaarloog yow. nga summeeku. da nga xam ne kii tey état bi mu indi du neex a daan. bu naqaree daan la waaye nag ëmb dafa bëri facette li ma lay wax. waaw ah, dafa bëri bëri dafa mbapat. <laughs> dafa Mbappé wax na ko keneen waaw ne capable de tout waaw loo xalaat ni mënu koo def ci bëre mënu ko mhm. ci def mhm. ndax def ci am expérience dafa yàgg bëre mhm. loolu moo tax loolu moo tax xale yi comme ci bëre rek mën na la tromper promoteur bu ko tëgg muy Gaston Mbengue nga xam ne moom itam dikkaatam ci làmb ñu bëri dañu mel ne dañu noyyiwaat waaw mais parce que mais kooku bàyyi làmb sax li mu liggéey ci làmb ak li mu ci def ak combat yi mu mën a décrocher n'importe qui mënu ko décrocher dafa yàgg tëgg làmb yàgg na depuis 93 94 ay après 92. waaw la tëgg puisque Maguette Diouf bu daan président euh, Ndiambour la daan àndal di tëgg. di mhm. Maguette bàyyi moom moo continué. ndax Maguette moo doon président. ok muy tëgg làmb moom. Mhm. ba jóge fa nekk président Ndiambour. Mhm. nga xam ne ko li mu liggéey ci làmb bari na. grand combat yëpp moo ko tëgg. moo tax bu dellusee ci làmb gi ñëpp dañuy soufflé. ndax promoteur bu mag a mag a mag la. te dafa mën a décrocher combat puisque dafa xam. naka lay décrocher combat parce que mbër yëpp daf leen bëriloo ba ñuy xale. waaw ci ay compétition yu mu daan tudde classe. Uh-huh. ba tey ñu nekk champion. Mm-hmm. kon moom mi leen révélé bu dee ba soxla leen day yomb dina wute ki nga xam ne jaarul fa ak la dafa c'est un moom mm-hmm. dafa am solo moo tax ñu koy ñaanal. Mm-hmm. combat yi mu tëgg am lu muy lu bari la Ama Baldé Modou Lo am na ñoo xam ne dañ ne Ama dugg na gutta ñi ne Modou moo am problème parce que waru ku na jël Ama. ba ñu jël làmb amul loolu booy loolu yéen a koy xalaat yi ñuy faralaat yooyu <laughs> mais ku ñu teg cent millions ni la bëree la ginaar sax nga bëree. bëree moom. mais xëy na gars yi ci côté xëy na. non mbër du gisee noonu. doole baag yow tamit mbër mu toog bëgg combat ñëw ni la cent millions ni la bëree ko. Mhm. mais doo calculer ni kii mën na maa daanaka yooyu boo ko defee kon doo bëree di. dëgg bi moo lay bëriloo xaalis bi. xam nga combat boobu fay leen ci xaalis. bien sûr. ci quatre vingt ñu fay ko la bi du génn. dëgg la te dañoo war a bëri. ñoom ñaar waaw ah lu tax ñu war a bëri. ndox parce que Ama dafa def loo xam ne war na bëri ak Modou Lo. victoire yi mu am ak ñi mu daan. waaw ku ko def war a mën a bëri champion bi wala ñi mu daan. daan na Tapha Tine bu lim sax. ñi mu daan rek doy ñoom ñëpp waaye tamit daan na leen. kon daal Ama tey mérito na bëreeg. Modou Lo bien sûr ah bu loolu kon du bëreeg moom Modou Lo ko woon sax. nga mhm. làmb leen boole. Mhm. dañ dem ba làmb boole leen Modou Lo xam ne bëreeg moom rek moo fi sës. Mhm. ndax xale bi am na doole waaye bul fàtte tamit Modou ndaanaan la. Ah, Modou day daan Modou ndaanaan la de booy. Hmm. oho Modou ndaanaan damay dégg ngay faral wax loolu. Modou ndaanaan ah, la mais daf ko wane Modou xam la ndaanaan la. waaw day koo xam ne moo ko ëpp doole kooku ko ëpp doole fuuf mais respect bi ko ko di jox mooy ëpp moom respect bi mu koy jox. lu tax loolu. ci personnalité am Modou waaw dafa am personnalité sérieux ci li muy def ba pare intelligent dafa yeewu dafa hmm. muus daa muus dafa muus xel bi mu am moo koy jox ndam yi muy am ah day calculer hmm. dara du ko rëcc ci combat bi hmm. tout dafay contrôler tout xam loolu boo ko defee loolu mooy vigilance ak sérénité pour nga jëlee ci defet dafay doy waar te kuñ ne moo ko man bu bërëgee da lay attaqué ak koo mënti doon moom Modou dafa yóbbu Bombardier waaw euh, ardo yóbbu na ko ardo de loolu ku ñemewul du ko def waaw xeex ak moom xeex dafa xeex moom bu yóbbu ko ardo day sol loolu moo ko jumloo looloo ko nax dafa defe ni kii fu mu nekk bëre bi jeex na mhm. mu forcé bëre bi daanu mhm. amaa tamit mhm. dafa doon xale boo xam ne lu nekk mën na ko am ci làmb d'abord ci héritage paternel bi waaw ak gëm-gëm gi mu am ak confiance bi mu am ak explosivité bi mu am waaw waaw dafa ne ni ku mu dajal moo la man cër bi mu jox làmb ak respect bi mu ci am. ndax daf ci màgg daf ci juddu màgg ci. adversaire nga wax am na ñoo xam ne bu fa ko Modou Lo xaaree ba ama hmm. a dangereux daal ñëpp dañ ko attaqué. Ah, kon attaque bi nit ñi wax ne mooy avantage. su ko ama noonu sax ama calculer bëri yi xam na ni bëri ak bëri yi mu du benn ci combat capital la. waaw roi des arènes wuti nag combat yi mu bëri ndax kii bu daanee day nekk roi des arènes te loolu hmm. mooy rêve te ñu koy indi xam nañu làmb ci la ñu juddoo ci la ñu te am na hmm. ginnaaw hmm. ni mu daan bëri ak papa saw ak ñooñu du ko bëree arbitre du soufflé mukk mu marche ci ko defee du baax ci moom Modou Lo kenn du marche ci kawam da ngay taxaw contrôle la ko ce n'est pas parce que Balla def na ko ko daf koy def parce que Balla dafa avantage ci taille bi ak ci loxo yi ak poids ndax nit boo ko tiimee sut ko da ngay am ci moom avantage c'est pas moom moom Modou Lo ñoo tolloo. donc bu koy attaqué ji war na xam na ko la koy attaqué ji. du tëb attaqué ko rek aveuglément lool du ko def. ndax gis nga def na ko contre guy gi. def ko contre nes. def ci daanu. bëri ba heureusement boobu xale la. waaw entre temps ci réfléchir na ci la gëj a daanoo. je crois que bëri bii muy bëri si ak Modou Lo du ko bëree noonu. ndax Modou Lo du ko ñuy songe noonu bu ko songee. wala nga koy attaqué muy dellu ginnaaw mën na la touché sax te bu la touché mën na la kaw xeexkat la def daf day xeex moom Modou dafa daw dafa doy waar mu mën kor la dafa doy waar dafa intelligent intelligence ko jox li mu am mm-hmm. ak fit mm-hmm. ak gëm boppam mm-hmm. donc parce que dégg naa ko mu ne du ma ñeexu ñebe je te dis te dëgg la lay du ñeexu ñebe waaw mais nag xam nga làmb <laughs> bu fekkee da ngay koo xam ni xale la si daf la ñemee dafay doy waar amaa it ne ko bee ko sax boo ko roon danaa dajee ma dogal la bëri ak yow amaa dafa gëm te amaa dañ ko dégg mu leer luwaale tamit dégg ma la wax te ñoom xam nga tamit boo seetee seen cosaan ak fu ñu jógee jaloor yooyu yàgg nañ koo def mhm. ki fi di bàyyi muy fodde de suba def na ko fii papaam def na ko fii kon buñ ko ko gëm-gëm loo ni ko lii da nga koy def da koy gëm jusqu'à preuve du contraire donc du ñëw lamb ji ak en victime euh, expiatoire de. Hmm. dafay ñëw pour yaakaar ni day jël drapeau day jël arène bi de. da jël euh, couronne bi de. Hmm. mais ki muy dajal moo doy waar. muy Modou muy Modou. <laughs> Modou day. <laughs> man de Modou man de c'est un lutteur à craindre. ak mu toll noonu. mais booy mental moo ëpp doole lépp. Hmm. mais xoolal jour yi ñuy tudd Messi. waaw guddul de guddul. joolul bariwul doole. du bëre doole sax. Mhm. moo du xel lay bëree. doole ju def ko def pour résister la. pour bañ nga ëppale ko ko. nga bañ nga ëppale ko mais li muy yëpp ci xel la koy defee du ko defee doole. du bëree doole. am na looy moytuloo Ama ci Moodu. mu respecté ko. mu respecté xam ne champion lay dajal. ok pour mu daan ko il faut mu indi yëfu champion. Mhm. ndax bu ko indiwul du baax. Mhm. ndax ki muy bëreel neexul a bëreel te yombul. Euh, mën nga ko xeeb ci gis-gis. mais bés bu leen jàkkaarloo ba jàppoo nga xam ni du ku du ko ñuy xeeb. man la combat bu mhm. man mii su ma doon wax favori. Mhm. Modou mooy favori. parce que mooy roi des waaw. mais être favori ne veut pas dire que. yaay gagné waaw loolu moom dëgg la. autant am na mhm. chance ci combat bi autant Ama am na chance ci combat bi. donc ñoom ñaar ku ci nekk boo joxul cër bi nga war a jox sa morom rek soo moytul doo am li ngay bëgg il faut ñu respectante mhm. pour ñu xool nag bëri bi finalement nag lay mujjee mhm. le promoteur muy Luc Nicolaï tamit xam nga ko ñu tëjee loo koy wax moom ci bés boobu parce que am na ñu naan combat bi est-ce que xaj na arène nationale ak moom nee na la koy tëgg te moom tamit homme de grands événements la waaw loolu am nga xam na li muy def dafa yàgg te dafa mën a gérer événement xam na ni mu koy gérer. Mhm. am na relation yi am na background bi te it am na carte bi. Mhm. te it c'est un homme de réseau. Mhm. donc bu demee moom ba ni mun na ko tëgg à a ses raisons sax suñu perpékaay. non non non événement lu mel noonu. non dafa tàmm événement. mais papa nag la Moodu Ama nga tëgg ko à huis clos. keroog amateur yi am. la waaw non du neex. déedéet ñaari mbër yooyu ko sax. waaw mais moom nee am na possibilité def ko léegi on va voir ligue de lu ne moo fi njëkk a pay de Balla Gaye Gris te keroog làmb ji sax gis nga seetaanu ko sax dafa dem yoonam waaw moom seetaanul làmb ji ndax xam na qu'il a fait une bonne affaire dafa jóge mm-hmm. rek dem yoonam mm-hmm. mais moom ci boppam loolu wax mais làmb nag li koy neexal mooy public mm-hmm. làmb bi ku la moom c'est pas intéressant même si c'est intéressant pour le promoteur ça ne l'est pas pour les amateurs làmb li koy vivre loo mooy nit taxaw seetaan Mhm. fees dal moo am animation am mhm. ambiance mhm. loolu mooy pousser mbir yi pour ñu bëri am na solo Alaaji Papa Dieng